Pape bu ñu doon wax lan moo la gën a métti sa àdduna lan lay doon ñu tëjee ko loo xam ne doo ko fàtt <laughs> mais xam man damay jégale damay jégale lool lool lool ba tax na lu bari dama koy sax fàtte Euh, mais sa vie la gën a marqué. oui la perte de mon épouse sama m'a vraiment marqué parce que moom dafa woon euh, day koo xamante ni kii la woon ci man. billahi wallahi une femme exceptionnelle extraordinaire li ma gën a marqué. gën maa marqué. te du ma ko fàtte mukk ba illa yawmi diin. la tëdd guddi benn bés. ñu waxtaan waxtaan àdduna. ci digg mu ne ma euh, xam nga ni su fekkoon ne dañ naan maanaam yow kan moo war a jëkk a dem maa ko dem fan làqu ci man ko waaw mu ne ma buñ ma laajoon man dama ne man ma jëkk a dem ma ne ko lu tax euh, loolu de laa bëgg jëkk laa wuyu ji ma ne ko lu tax ka wax loolu guddi mu ne ma su fekkoonti ni soo bu la yàlla yóbboontee ba ma fii naka laa def njaboot gi aw ma salaire aw ma xëy lu dul lii may daan doole nii waaye gëm na yàlla nag waaw loolu daal nekk na loo xamante sa sa wax ju ma marqué la moo tax bi mu génnee àdduna il a fallu trois jours après ma ne mais tiens pourtant waxoon na ma lii de waxoon na ma lii waaye nag jaam ak euh, moo tax ñu ci ñaan te moom daf ko li wax noonu daf ko gëm ci xolam da ko gëmoon ci xolam ah yàlla dafa dogal nag mosul ragal dee boo waxee mu ne ñëppay dem billaahi boobu ma san wax mu ne ah, ah, adduna moom nii rek mais ñëppay dem moo tax def addu ku ci def adduna defal lu baax ku ci wax waxal lu baax euh, ku ci yéene nit yi itam yéene ko lu baax te bu kenn jaral lenn bu jaral lenn nit pour faagaagal ko waaw beneen bi mooy li ma métti nag ci fan yi la histoire bi fi amoon diggante artiste géejuwaay yi ak xaalis bi fi amoon xaalisu Covid bi ba ñoom ñu accusé ñu ñu dañoo détourné xaalis ci xaalis bi ñu Macky Sall joxoon ouais Et 19 millions et qu'un ramolli, je sais pas moi mooy wahou, kii tu vois bon mais xam ni que l'eau, moun, moun, moun, moun, moun, moun. Amna yo na buñ ko tegee sa loos dang koy jema a leerlu setal setal sa der ngir njabor gi ngi fi bàyyi ngir way wi nga ab am ci réew mi bañ a yàqu il a fallu que ñu dem euh, bi ñu ne dañu dem tribunal la ñuy fa woo baax ci ñoom parce que li ñu wax tegu ñu fenn amuñu preuve te mën leen na téye te kenn du yóbbu sa njaboot kaso parce que pare nañu suñu dossier yëpp yëpp. accusé la yow détournement. non ah, bureau bureau national accusé président national secrétaire général ak trésorier général. <laughs> les ti et les Bundoy avec Pape Mais après, c'est après qu'on a compris que nous allons induire en erreur. Parce que Khalis beaucoup n'est qu'à 30 000 francs l'âme. Nous sommes nga dafa jël avant sax ma jël sama man dem diwlin jëndi envoyé Orange Money sama artiste sama xaalisu bopp xanaa ku def loolu kay xanaa dos. yàgg naa dox social. <laughs> donc loolu loolu quoi. wax na ñëpp vraiment parce que aduna ni mel ñoom itam ils ont reconnu effectivement que euh, voilà du noonu bon am na décision yu ñu jëloon sax finalement ne gars yi c'est pas la peine di jël ay décision di di leen sanctionné nañu bàyyi noonu mu tëdd mu nelaw. tàggatoo di leen gërëm di leen sant di gërëm yow Ndeye Pétaw li ma métti. Euh, di kontaan tam sen liguey parce que yenn sujet yu am solo yu sensible ngeen di dawal parce que askan wi da ko soxla itam ah mi da fa soxla yoy de waaw vraiment merci euh di leen juste toujours à votre disposition lépp loo xam ngeen ni lo xamante ni ngeen mako ko teew mën ci tontu dal na ci tontu di ñaan Sénégal yépp ñu dugg ci koor gi ñu ci dugg ak jàmm ñu ngi génn ci noonu ak alhamdulillahi rabbil alamin képp ko ci amoon ay jàngoro wala ay naqar ay mettit yan ko suñu borom bi faj. yal na suñu borom jéggal ñi nga xam ne mooy waa dawda yi xaari ne ajjana ñoom ñëpp malaaka yi yërëm ma leen teertu leen ba ci ki nga xamante ne kii moo mujjee euh, tàggoo tey wuy sunu borom ca barsax yal na sunu borom jéggal ñëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam merci xadamu sëñ Babacar la a nangu. dëgg la koo xamante ne nii kenn dootu ko présenté macha allah mu nekk ku disponible lool nga xam ne li ko yàlla may ci réew mi yëpp saa woowee parfait da koy jot saa yoo ko soxlaa du la indil benn jafe-jafe da ñëw ànd ak moom waxtaan ba soxol sedd kon dañ koy jaajëful baax a baax si disponibilité bi di ko wax ne ko yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla saxal suñu kanam ndax euh, ñoom suñu tiitar la daal moom dañ koy tiitaroo <laughs> rendez-vous bi semaine bi ñëw lay ñëwaat ak keneen koo xamante ne dañ koy déglu ci réew mi si biir li ma metti show ndax xam nga li ma metti show moom ruq bu cin buy baax la am ruq bu sedd bu ñëwee waxtaan bi day neex kaf day neex foo day neex waaye itam sottante xalaat ba njëriñ man see juddu dafay neex jërë ngeen jëf ba semaine bi ñëw di jaajëfal sama équipe bu baax a baax ñoom itam maa ngi leen di béggee baax a baax jibi maa ngi koy béggee mbégteeg bànneex ngeen jëf ba bi ñëw ci beneen top show